gars yi ñu nuyu leen ziar leen bu baax a baax sur di match euh, tey jii ca Real Madrid match dana fa am bu ama am solo Aston Villa tamit dana laale ak équipe bi la nga xam ne moo nekk Arsenal loolee balaa revue de presse bi nag ñu toppate ndànk rek information yu wér te wóor bala ñuy ñëw ci revue de presse bi ci kanam tuuti lay doon nag ndax daa xaw a naaje ñu porox ndoll ci nag jaare ca Aston Villa dana daje ak équipe bi la nga xam ne mooy Arsenal match boobee mi ngi am tey jii tombeeg juróom fan. Euh, dib samedi ci weeru décembre bi nga xam ne mooy jeexal euh, mille at 17 heures 55 match boobee Canal Plus moo koy teg bu ñu gisee Aston Villa nag ndax fa yii daanaka fi mu toll nii dafa bokk ci lit bi nga xam ni euh, ñoo nekk ca championnat Angleterre tey di fa jàmbaar di góorgóorlu bu baax a baax. kon gars yi match boobee boole leen ko ci seen i calendrier ndax bu ñu leen ko waxee gëm leen ko dana nekk match boo xam ni ay étincelle danañ ko fa gis ndax match bu nar a neex te cuqur mbuuj la Real Madrid moom it dana football équipe boobee di Madrid ngeen gis ko. Euh, tey jii ñu mën leen a andil ñi nga xam ne jàpp nañ ni war nañoo mën a bokk ca match boobee ñu mën cee joxe kii lee di euh, Alaba mi nga xam ne gis ngeen ko ci image yi. moom Alaba bokk na ci groupe bi ak ki nga xam ne daanaka euh, fi mu toll nii daanaka mooy Rudiger loola ci défense bi la waaye bu demee ci attaque ba nag dañ fay mën a am ki nga xam ne mooy Rodrigo ak Brahim ak Sos bi ñoom ñooñee boo amul chance bokk ci ñi nga xam ne ñoo koy bokk li leer ba mooy Rodrigo moom dana bokk ci compo officiel bi ak ki leen di Bellingham. Euh, mi nga xam ne daanaka fi mu toll nii foo noof lay suyee kuñ ko man di booleel mu dem waaye mi ngi nekk ci diggante soos bi ak kile nga xam ni euh, moo nekk kile di euh, maanaam Gonzalez wala Gonzalo ñoom ñaar ñëw ñëwee fële ca Real Madrid bu dee tamit milieu terrain bi Modric ngi fi taxaw di xaar Fede Valverde Ceballos ni ko pas mi nga xam ni pas pasi na fële ca Madrid loolu lépp rek di am solo Kepa digganteem ak Real Betis lay doon nag match boobee ñoom ñaar bu ñu football du yomb benn yoon Real Betis euh, match bi mi nga am 15 heures 15 maanaam bu ngeen añee ba pare ba jot a dóor seen ëwal di xaar deuxième bi diggante boobee fala match bi démarré bu ko defee ngeen mën a teg caayan seetaan match bu neex match bu mucc ayib ñu gunge leen ci ci li nga xam ni mooy compo officiel bi jërë ngeen.